asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu <clears throat> bu GCB di gërëm Baye Assane Mesre bu baax a baax a baax euh, mbokk yi tey nag dañu ñëwoon euh, ngir ñaari yëf bi ci njëkk mooy euh, defal hommage ki nga xam ne moom la Sénégal ñàkk <clears throat> presse bi ñàkk ko diine l'islam ñàkk ko adduna bi yëpp ñàkk ko muy Sidy Lamine Niass beneen bi ci des mooy lu jëm ci wàllu guru Walfadjri ñaari point yooyu lañ bëgg a waxtaanee. Euh, bi ci njëkk ñu waxtaanee ki nga xam ni euh, fi du waay am ci wàllul wax ci wàllul liberté ci wàllu loo xam ni danga foogoon ni du lu ñu war a wax wala nga foog ni tooñ la jëmm jooju ñëw ni la lii du tooñ wax li nga war a wax la te teg ko ci yar ak teggin ak dëgg muy si Lamine Niass ñu bari dañu foogoon ni lu bare bare bari ak tooñ la mais gannaaw yàlla Sidi Lamine ñas moom moo tax ñu xam ni loolu du tooñ wax li nga war a wax la moo xam gouvernement bu ñëw la bëgg not askanam moo xam boroom xam-xam la bu ñëw bëgg a réeral askanam moo xam ku mu doon koo xam ne da nga bëgg ñëw teg leneen lu wuute ak lu jaaduwul ci sa askan si Lamine Niass ñëw taxaw nekk avocat wu ñooñu ba gis ngeen pressam bi rajo bi mi ngi ko tuddee woon la voix de sant voix ñi nga xam ne amuñu kàddu euh, li ci njëkk nag mooy jëm la woon joo xam ne aussi. maa ngi dégg fan yi sax ñu naan ay Sidy Lamine Niass bari na ci dëkk bi non ay Sidy Lamine Niass bariwul ci dëkk bi naam bari na ci dëkk bi ci wàllu xam-xam ci wàllu maturité ak lépp mais ci géew bi ñuy waxee ku ci mel ni Sidy ci xam-xam ci làkku arab ku ci mel ni Sidy ci xam-xam ci làkku français ku ci mel ni Sidy ci xam-xam ci droit ku ci mel ni Sidy ci xam-xam euh, ci ay loi loolu bariwu ci nit mën na jàng tubaab am fit gi Sidi amoon am sañ-sañ bi Sidi amoon mais est-ce que mën nga remplacer siidi ci ni mu doon taxawoo daara ci buñ masaana offensé daara buñ masaana laal daara buñ masaana laal constitution bi Sidi jóg indi ca ba indi ci loo xam ne ñi jàng droit xamuñu ko suñ masaana laal loi bi Sidi jóg indi ci ba indi ci loo xam ne yow mi jàng droit xamoo ko est-ce que kooku dina jafe dinañ ko amaat naam dañ ko amaat waaye dinañ dund at yu yàgg dootuñ amati ku mel ni Sidy Euh, ñun ñu bari ci ñun euh, suñu maanaam suñu modèle la suñu idole la ci wàllu gii euh, nit la koo xam ne nag bala ko sénégalais yi xam bala Sidi Lamine ñas ñu koy xam dëgg ñu passé élection yi passé élection yi ñu jub si buñ ko weesoo lañuy xam njariñu Sidi Lamine Niass ci biir dëkk bi ak fan la féete woon sénégalais yi ñu ngi koy ñaanal yàlla yërëm ko xare ko aljanna teeru ko ca barsàqu seyduna muhammad alayhi salaatu wasalaam mu des nag groupe wal fajri mbokk yi tey réew mi ku nekk ngi jóg di wax walf walf walf walf euh, ñu naan siidi nañ ko delloo mbattu bi ca ndaala nañ ko delloo lim ñu liggéeyaloon mais gis nga li ci njëkk mooy mbokki nañu bàyyi naxante naxante baaxul groupe de presse bu mel ni wal fajri taxawu askan wi fu kenn taxawul Sidi Lamine Niass daj coono bu nekk dégg lu nekk ñu xañ ko privilège bu nekk ngir askanu senegal daj lu nekk ngir sénégalais yi te tey groupe de presse moo fi gën a néew ay publicité moo gën a néew sponsor lu tax te ñun sénégalais yi nga xam ne ñun lay xeexal pourtant bu ñu amee ay sponsor bu ñu amee publicité feneen lañ ko yóbbu man li may wax seede laa ci ndax du ma wax lu ma xamul du ma waxi ngir lenn parce que bu dee tur nekk naa ci rajo Ablaye Wade ay at awma tur ginnaaw yàlla lu ma am ci tur donte ni soxlawuma ko sama internet bi sama sama sama compte bi moo ma ko may mais damay wax rek ci li nga xam ne moom laa dund man ay yoon yoon Moustapha Diop mi nga xam ne yore na lenn ci ay responsabilité ci biir kër gi si di dénk ko ak ñoom bétti maa ngi leen di nuy bu baax ak euh, Cheikh Ndaw bi jiite fans club bu Walfadjri ay yoon yoon nit dinañ dina dinaa leen contacter ci ay sponsor yoo xam ni nit dama koy réclamer pour bëgg liggéey ak ñoom pour jaarale ko ci man mais da ngay xam ni mbokk yi boo demee ba ci biir da ngay xam ne fu li koy xeex bala ñoo wax gouvernement Sénégal ñun nañu wax ñun suñu bopp kon ñun bala ñoo wax gouvernement ñun ñooy xeex Walf da nga yor sa œuvre yor sa concept dem seeti sponsor maa ngi ciy jaajëfal ko ci mel ni euh, sañ am sa Abdou Samad Fall euh, ñu njëkk a tàllal loxo soaay bu ci la bokk keroog ba ma ko woowee di ko wax ni ko am naa concept dama ko euh, dama bëgg nga nekk sama sponsor ndax ma yóbbu ko ci rajo bi wala ndax ma yemale ko ci compte bi dañu ma ñun yow la ñu xam ñun yow la ñu xam foo dem ñu fekk la fa muy ki njëkk a ci loxoom pour gunge bu pour wax la rek euh, am na ci ay sponsor yoo xam ni ay ay chef d'entreprise yoo xam ne da nga yor sa concept dem seeti leen pour ñu gunge la ci sa liggéey. yow nga am xemmemtee fu bëgg liggéey wal fajiri bëgg a liggéey ak wal fajiri ñu ne la ñoom du ñu liggéey ak wal fajiri gis nañ ko ci ay ay ay concept euh, ay ay ay série yu fa doon daw ay série yu sénégalais yi doon bàyyi xel seen leader bi génn na wax euh, def na un an ñu ne ko lu tax ngeen jógee wal fajiri dem ci seen bi ñu ni sponsor bi moo leen wax ni leen fii ak yéen a ngi wal fajiri du ma leen sponsorisé génn leen fa ngeen dem feneen te tey ñooñu bi si lem ñes génne àdduna ñoom ñooy yappar yappari dem di def ay témoignages nga yor sa concept bëgg liggéey ni wal fajiri laa bëgg a ñun la duñ la sponsorisé lu tax parce que yaakaar nañ ni wal fajiri euh, euh, dafay xeex nguur yaakaar nañ ni wal fajiri dafay xeex état te non c'est pas vrai wal fajiri musul xeex état kan mooy xeex état mooy ki nga xam ni li askan wi di dund ci ay mitit li askan wi di dund nga ko koy nëbbal looloo daloon Ablaye Wade gars yi naan ko tout est ok lépp baax na lépp baax na ba mu xëy Sénégal yi mere ko fekk askan waa ngi ko mere. wal fajir taxawoon di wan sénégalais yi réalité bi li xew ci dëkk bi ñu ni mooy noonu état ba tax na ko sa koo seeti koo yor sa concept seeti ko pour mu sponsoriser la fan ñu ni wal fajir ñun la no man benn laaj rajo beneen bu mu doon sama xarit moo may yóbbu sama am di jàmm mooy wax ne ma kaay nga dem fii gis naa ay proposition yu nekk demal fii rajo bi ubbi na demal fii man leen non parce que nit ki booy liggéey dafa am témoignage bu am solo bu Ndiaye Doss def te man loolu dafa bokk ci sama philosophie muy Ndiaye Doss dafa wax ni euh, day commencé di liggéey si Lamine ni ko jël nga yoon boo xam ne di nga am tur dinañ la xam mais na nga xam ne doo am xaalis muy lu doy gis nga ñun sénégalais yi gëmuñu ni war nga mën a liggéeyal sa réew. culture boobu ñu ñu nàmpal la ñu war a génn suñu xel yi dañoo ñàkk loo jom tey yaakaar nañu ni. ku fi nekk soo àndul ak moom wax ko li ko neex doo tekki doo am xaalis moo tax kenn ñemeetul wéet kenn ñemeetul ñàkk kenn ñemeetul tumuranke faw ñu nangoo xiif faw ñu nangu di xiif parce que dañu daje ak ay gouvernement yoo xam ni daje ak ay njiit yoo xam ni système bi ñu jël mooy dañu wax ni suñu askan nañu leen xiifal ba ñu xiif bu ko defee fu ñu leen jaarloo danañu fa jaar te am nañu gëmul loolu nag kon groupe Walfadjri ñun askan wi nañu ci jàpp nuñ ci jàppee nan la am nga sa publicité am nga loo am nga koy sponsorisé ay émission yu taxaw ña nga fa ah ay jàmbaar ña nga fa parce que ñi ngay dégg ci yeneen rajo yëpp fa lañ jógee kon ay jàmbaar ña fa ay sponsor yu taxaw bu ñu demoon dugal fa seen loxo wal fajir du ma sa am jafe-jafe mais xalaat nga ne yow boo fa dugalee sa loxo euh, nguur ni la yow sama ennemi ngay dooleel. rëq sa ndigg xalaat nga loolu moo tax doo fa dugal sa loxo jaru ko jaru ko walfu ñun ñoo ko xeex balaa ñoo wax nguur nguur yi fi toog yëpp kenn ku fi toog am na lu am solo lu la di defal nga doog a toog dinañ ci seetaan léegi benn élément bu koy firndeel ki fi toog tey avant dara di xew mas na fa jaar am na lu mu waxoon. encouragé parce que il ne question de réduire en silence ce groupe Walfadjri ainsi que la presse sénégalaise pour le bien de notre démocratie. Sidi Lamine nag ak ñi nga xam ne moom la àndal di liggéey ci Walfadjri yoroon nañ leen jukkal maa ngi koy encouragé bu mu découragé lii mooy wane ne si yoon wu jub nekk parce que bu newaloon si yoon wu jub lii dugg si daal kon bu mu découragé benn yoon te xam ne bokk na si ñu taxawal démocratie Sénégal ñu ngi koy won suñu solidarité di ko jàppale di leen jàppale yéen journaliste Walfadjri ak travailleur de Walfadjri lu yàggul dara deux mois lay lay lay war a toll Cheikh Ndao euh, njiitu fans club bi dama jékki-jékki xëy gis benn euh, vidéo bi euh, véhiculé ci kii bi internet bi ma woo ko ma ne ko amee ah, lii kañ la dafa yàgg wala mooy bi si lemñes doon génnee fise yi naan gis nga taxi yi la ma état tegal nee nañ su ma ko fayul xaw ma lan nag lan ma ne ko lii kañ la gëstul ma ko bu fekkee ni lu bees lañu ñu def ci ay liggéey sénégalais yi jóg pour ñu xam ne Walfadjri moomeelu askan wi la kenn du ko laal ci la seex ma lii vidéo bi yàgg na gars yi ñoo ko mise à jouraat mu ni ma nag waaye nag nii lay demee saa yu élection jubsee faw ñu jéem a indi ay xoqatal jéem koo fayloo ay taxi mu tëj làmmiñam loolu moo tegul fenn mbokk yi tegul fenn wal fajiri nañ ko dooleel muy man ak sama moroom nañ ko dooleel parce que kër la goo xam ni sénégalais yi ñoo ko desee bu fekkee nag sénégalais yi ñoo ko desee te boroom kër gi am na lu mu leen doon xeexal naka ko nit ñi delloo dundal kër gi kër ñaara koy dundal rawatina rajo muy serveur vocal ak publicité ak sponsor ñooy doxal kër gi yeneen yi doog a ñëw mais bu fekkee loolu lépp amul nga bëgg di dégg ñu ngi fay dégg naan waaw yéen yéen fi nekkal askan wi du sotti waaw ñi ngi jaale la euh, si Lamine àddina ñu koy jaale Sénégal jaale ko monde entier jaale ko njabootam euh, jaale ko Moustapha Diop Cheikh Ndaw Betty DJ Prince sama xarit mi nga xam ni euh, li ngeen ma doon gis Walf yëpp moom moo ma fa doon invité maa ngi koy jaale euh, DJ Prince ak fans club bi ñëpp bàyyiwuñ kenn Sidi yàlla na yàlla teg loxo njabootam ci ginnaawam ba dara du ci am réero du ci am incha allah yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ba defee ñun tamit ñu bañ a yem ci wax kese te xam ni euh, ku bëgg a xeexal sa réew faaw nga sonn faaw nga ñàkk incha allah ay ca lu jub ci waxtaan yàlla lañ koy sante lu ci dëng ci ñun ñi la ndax ay doomu aadama rek lañ wa aaxiru da'waanaa wa alhamdulillahi rabbil aalamiin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu